patriote maa leen di nuyu bu baax di leen ziare maa ngi ni taxaw ak Sahara bu Tamba tey vraiment Sahara kontaan nañ trop parce que liñ doon xeex lépp bis bii lañ doon xaar mais yaakaar naa ne si biir dañoo a kontaan mais ci kanam tuuti la ñuy gën a kontaan. léegi nag loolu te gis nañ victoire bi nga def Tamba moom la ñëpp di coow. waaw jërë lay kontaanee bon léegi liggéey baa ngi ñu xaar nañu booloo doon benn liggéey dëkk bi incha allah. incha allah protéger projet bi rek. waaw ba yàqkat benn du ci mën dara incha allah. merci